ginnaaw la sœur tey on est fier de vous de voir à notre côté yu bëri daaw nañ yow nga taxaw dëggal sa bopp ñu ngi lay jaajëfal sa appel dégg nañ ko yal na ko sénégalais yi suivre jaajëf sister jàmm rek ngay am yow libéré Sonko jaajëf public ci jàmm ji ñu sàkku ci moom jàmm ji sénégalais yëpp bëgg ci Sénégal damay wax rek ni au moment où des États africains ñi ngi travailler pour la souveraineté de l'Afrique moom mu ne day envoyé suñu ay doom ñu dem combattre ay seeni frères africains c' est honteux. plus que honteux. vraiment honteux. c' plus que honteux. moment bi nga xamante ne Juan Branco libéré nañu ko ñu bàyyi encore suñu ay frères suñuy mbokki artistes suñu ay yaay ñuy périr ci prison bi loolu c' une honte pour l'Afrique. damay dolli aussi di wax suñu force de l'ordre yi ñu di tirer ci suñu frères yi suñu sœurs yi seeni frère lañu seeni sœur lañu mooy li ma wax Sénégal suñu deret moo jaxasoo kenn mënu ñoo tàkkali koo koo dóor bal xamal ne boo toppee arbre généalogique am na fu ngeen kon ñaaw na dafa ëpp ci Sénégal dafa ñaaw ci Sénégal kenn warul nangu ñu lay dicté pour nga tiire ci sa moroomu sa sa frère wala sa sœur c'est honteux loolu dafa ñaaw ba nga xamante aussi maa ngi woo suñu yaay yi ñu dellu sàlloo ci koy talaatay ndeer waxal waay ndax loolu la Sénégal baaxoo ay jigéenu bañkat ñuy jur ñu suñu ay frère lañu suñu ay doom lañu may wax suñu yaay bu fekkee ne dëj bi ñu dëj xale yi nag na leen ba ci yàlla nañu na guddi ci noir yi génn. waaw bool yi génn. ñu tëdd wane ni wane ni lii neexu leen suñu ay doom dañuy tëj ci prison kon bu loolu fu may aussi mooy maa ngi woo le peuple sénégalais di woo jeunesse bi yëpp na yokk seen taxawaay ci soutenir Ousmane Sonko. bu ñu bàyyi Ousmane Sonko ñu ko bu ñu ko koo xamante dafa set wecc lekkalul benn yoon dërëmu Sénégal lu dul di liggéey di dol ci Sénégal kon tey jii ëpp na du abandonné ko sénégalais yëpp nag di ñaan jeunesse bi jigéen ak mag ak ndaw ngan la ngir yàlla ak bi bu leen abandonné Ousmane Sonko bu leen ko abandonné soutenir leen soutenir leen ko jusqu'au bout ndax loolu la jig Sénégal wasalaam merci beaucoup